xel dafa am solo. ndax alaaji nga njaañ réew boo ci nekkee te bay sa waar comme kii. Cheikh Cheikh Mbaba mi. li mu wax nii ñi mu jamonoon teeloon ku dégg baat bii mu wax di nga am loo yëg. moo tax bàyyi xel. ëllëg dafa am solo. nga njaañ ëllëg du añ dureer waaye lu ma sa si. waaw lu ma sa ci lu ma sa la. <laughs> kon Cheikh Mbaba ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax. Eh. waaye di wax ne tamit nga njaañ na mbër jàng ci ñii. ndax deuxième combat. ci nga daan fittee. waaw bay ci sawaar ba ba daan ñëpp. boo dëgmalee boo dëgmalee grand combat walla nga dëgmal dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñoo la féete mag nga dégg daal mais léegi amatul. dañ lay jëlee rek ci benn combat. ñu jox la avance nga fuuy. <laughs> waaw teel am xaalis boo demee koñ ba toj ko. <laughs> la lamb lamb joo dem defe na yaa fa ne defe na yawa jaay star mhm. dama ne loolu léegi moo xew ci lamb ji mhm. te ñii lu ne def nañ ko ci lamb kon ñoom war nañu bàyyi xel ñii te loolu ñi leen taxat ba tey léegi ba tey léegi nuy sant yàlla mhm. tey dund ci yar ak teggin rek lañu ko teg loolu nag na ci mbëri bàyyi xel alaaji nga jërëjëf alaaji Garmi ci noonu nga témoigné Cheikh Mbaba euh, jëf jël ñu ngi koy nuyu moom moo indi booy jinne euh, xam naa ne euh, jëf jëlit xam naa ne am na waxtaan ñu defoon ak moom di ngeen ko seetaan ci élément Fallou Faye je pense que ci loolu la ñuy ñëwee nag ci grand combat bi di dalal soxna Ndeye Cissé ak Wedji ñoom ñaara ànd teewal fii ki nga xam ne mooy madame Thior Euh, ginnaaw loolu euh, Ndeye ginnaaw bu ñu la bàyyee nga nuyoo euh, taxawaayu toogaayu madame Thior nga fi toog tey defe naa ne ku ñu yónni ku ne dara jaam ngay indiwaale di wax asalaamaaleykum. maaleykum salaam tonton. Mhm. bañ sante yàlla julli ci yonante bi sant suñu ñaari waajur. Mhm. sant suñu wasila Seydou Bakar Sy Mansour. Mhm. ñi ngi gërëm ñu fekk ñëpp nag. di gërëm promoteur bi di gërëm suñu càmmin jooju toog di garmi ndax wax dëgg yàlla. yàqul dara ci bés bi mm-hmm. ndax moom ak borom bés bi benn lañ duñu ñaar mm-hmm. ndax day suñu càmmin ju yàgg du tey ndax moo ñu yar mm-hmm. kon nag dañu kontaan ci ba ñu bokkeek moom bés dañ koy sant di ko gërëm di la gërëm yow mii nag wax dëgg yàlla tonton parce que gis nañ ni li ngay liggéey ci làmb ji dañ la ciy encouragé di la ci félicité di félicité nag promoteur bi ndax promoteur bi suñu mag la suñu xarit la. Mhm. ndax mënoon nañu ay xaleel rek lañu mu xeeb ñu waaye defu ko dafa jël drapeau bu mag bi tuddee ñu ko suñu càmmin ji ni ko loo ca mën ak loo ca mënul yëpp na ko ci def. Mhm. waaye tonton maa ngi lay xam ne la. tuddoo nañu drapeau ku xam ne mbat na tuddee drapeau kuñ tuddee drapeau ah dama koy wax ni ko chaque jour jukkay sëñ Mbàkke soxna loo nga yore. ndax wax ja bëriwul jëf ja ñoo bëri. Mhm. te xale bu ndaw la am ay responsabilité ànd ak ñun jël responsabilité yi jox ñu ko moom nekk ci ginnaaw. Mhm. donc kon suñ ko tuddee bés bii ñun ñëpp dañ ciy ànd nga baal ma rek ñu ciy woo nag suñu secrétaire général. muy Ousmane Tanor mhm. ndax ñun bés bi dañ ko ko darajale moom lañ ciy woo mu ànd ak secrétaire généraux coordination yëpp ak région yëpp ñuy woo suñu maire bu baax bi muy xalifa Khalifa Ababacar Sall ndax maire bu baax la. Mhm. maire bu xam ne ñun wax dëgg yàlla dañ ko delloo njukkal. Mhm. ndax gis nañ lu def Dakar. Mhm. ñuy woo nag ñun waa dakaar xale yi. ñooy dalal gan yi. ndax ñun dañuy yendu ba ngoon ànd ak Aminta dem stade. kon nag région Dakar yëpp lañ leen di woo woo département Dakar yëpp. Mm-hmm. woo femmes yi nag di ko teg ci suñu loxo bàjjan. Mm-hmm. muy Aminata Mbengue Ndiaye. Mm-hmm. mu ànd ak femmes yëpp. femmes Sénégal yëpp lay àndal. di ànd ak femme Benno Bokk Yaakaar yëpp. ñuy ànd ki ñu tuddee drapeau bi nag tonton. dañ ko investir député. te jeunesse féminine la. leen nag drapeau bii drapeau jeunesse féminine la. xale yi jigéen ñi moom drapeau yi. moo tax nag mi ñuy woo xale jigéen yëpp ñu àndoo ànd ak moom ci stade ba boole koog yar ak disipline mhm. ñuy woo nag suñu càmmin ju xam ne dafa force ñun muy Barthélemy Diaz wax dëgg yàlla drapo bi drapeau la kon nag moom la ñuy àndal mu gunge ñu. ñu ànd ak suñu papa yu baax yooyu noonu muy Doudou Issa Niass. Mhm. ñu ànd ak moom ànd ak suñu secrétaire général ak suñu maire wax dëgg yàlla ànd nag ak suñu xarit tonton cër suñ la ko joxee danga koy delloo boroom. te moom cër ji daf ñu koo delloo. Mhm. lu mu am rek delloo nañu ko lu mu am bokk na ko ñun. Mhm. kon nag ñun tam ñun xale yi ànd ak moom mànd ak sama rakk jii di wéjji fay muy présidente union régionale cees muy présidente Ousmane Tanor Dieng donc ñun ñëpp ñooy ñëw ànd ak suñuy tànt ànd ak suñuy yaay ak suñuy papa ak suñuy càmmin ñëw nag ànd ak garmi mi dugg biir stade gunge suñu marraine bu baax boobu. très bien loolu la ñu bëggoon di leen sant di leen gërëm. mat tàccu leen ko gars yi ah Ndeye Cissé waaw kooku nu tuddee drapeau bi mhm. yàlla mooy def lu ko neex mhm. dafa am xale boo xam ne bii war na def vingt ans wala dix huit ans moom la Abdou Diouf joxoon fleur ba mhm. ànd ak ki nga xam ne ki mooy madame Elisabeth Diouf ca jamono ca jamono loolu yàgg na de mu nekk nag peñeer boo xam ne bii xam naa ne daal dëgg-dëgg ci réew mi yàgg a jox cër bàyyi ko xel mhm. Aminata Diallo dëgg madame Thior moom ci la bokk mhm. te ngañ judduwul ñu investir ko dëgg-dëgg ci liste yi mhm. judduwul ñu def ko chef de cabinet judduwul muy séddale ay cër ci biir maire bi ne ak Khalifa Sall mu baax jërëjëf nga xam ne ji ngañ jaay ku ñëw ci réew mi ak dëgg-dëgg di nga xam ne daal boo jaaree ci tali yi rek jëfu Khalifa ci tali yi la ci tali ci tali yi la ko tàmbee wan ñu ngi koy mottale ajuma ca stade ba lañ koy mottalee waaye ngañ mu woo nag Ousmane Tanor Dieng mhm. le premier secrétaire du parti mhm. nekk daal moo xam ne daal bésu daal retrouvailles oh oh fête bu rëy la alaaji ngañ retrouvailles euh, jërëjëf euh, alaaji Garmi mhm. euh, ñëw nag ci ki nga xam ne mooy Omar Jalang Omar Fall leen fàttali ne jël na drapeau Ndefleng seetaan naa ko ah, loolu garaaw na day jaay moom la ma la du après dem Italie xaw ma Espagne fa nga jaare bi koy jël waaw waa kay c'est waaw seetaan naa ko vraiment euh, def naa sax euh, ñëwoon nga équipe nationale voilà euh, micro bi acca micro bi ñu bàyyi la nga nuyoo bisimilah aouzu billahi seetaan rajim bisimilah rahmaan rahim ginnaaw sante yàlla mhm. julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sama yaari waajur mhm. ah di gërëm ñu kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew yëpp mhm. di gërëm ñi nga xamante ñoom la àndal muy samay tam kii nag la waxati sama def kii samay kii Alpha Bassène. ah micro bi micro bi. ñi nga xamante ne carrément moo ma yore. si école bu Casamance. Mm-hmm. di eh, gërëm Omar eh, Omar bii mooy sa ñaata combat ci bëri dóor bi. bii mooy sama premier combat ci bëri dóor bi yaa ngi doog a dallu. maa ngi door a dugg ci bëri dóor bi. bii mooy sa premier combat bëri dóor. bii mooy sama premier combat bëri dóor. waa kay ñu jox la ñu jox la Bécaye 3. ñu jox ma Bécaye 3. xam nga ko. Bécaye 3 xam naa ko. miin nga ko. maa koy door a gis démb. nga koy doog gis. démb laa koy door a gis kon miinagoo ko. miinaguma ko joxal ma ko micro bi. Bécaye. waaw benn salaamaaleykum. salaamaaleykum ayca ma bàyyi la nga nuyoo ba pare. ginnaaw bi ñu santee yàlla di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di ñaanal Serigne Saliou yàlla yàlla yokk leeram taal ci ci barkeem. waa ñoo ngi nuyu promoteur bi di nuyu Père Ngagne di nuyu. di leen nuyu yéen ñëpp. Mm-hmm. di nuyu ñaari ñi nga xamante ni ñoom lañ tuddee drapeau bi. Mm-hmm. waaw damay nuyu nag ñi nga xamante ni ñoom laa àndal King ak Wu Tang ak Laye 2010 ñoom laa àndal ñëw fii dem ba léegi depuis signature ba léegi ñoo ma topp. Mm-hmm. waaw même combat bi ba mu taxawee ba léegi contact yooyu yëpp ñu ngi ma ciy jàppale waaw. bi mooy sa ñaata combat ci dóor bi. bi mooy sama premier combat. ci dóor bi. waaw ah li ma Omar kii waxoon kay nee na ma ñi may indi kay gars yi gisaguñ leen. waaw mais Bécaye lan indi turu Bécaye 3 bi. Bécaye 3 sama maam la dëkk Pikine sëf waaw yow sëfay sa maam sëf mooy sama maam ah doo seetu mbër nga de waaw waaye yaa ngi dajeeg séeréer boo xam ne bii de keroog bi muy jël drapeau Ndefleng téeméeri mbër la ñu woon mu daan leen jël ko mi ngi nii toog père mën naa ne bu vendredi le quinze di nga gis bëre moom nee na mu ngi may door a gis démb waaw man gis naa ko xam naa ko yow jàng nga ko jàng naa ko gis naa ko xam naa ko te promoteur bi ba mu toogee ne ma Omar Jalang laa lay jox waxaale wu ma yàlla xam na ni mu ngi nii nee naa ko d'accord te néew ma temps laa lay fay. da nga koo yombalal. waaw ndax bëgg daan Omar Jalang rek. waaw bëreeg moom rek. bëreeg moom di ñaan yàlla mu may ma ndam ci kawam. joxal ma Omar. Omar yow waa ji dafa pare doog la laaj waaw waa ji di moom nee dafa pare doog maa laaj man de moom bu ma waaj bu ma bu waaj taxawal komba bi bu ma ne dina ma jox combat boobu dama fekk ma jóge fii dem Espagne mu ne koo ah. matt na rek baax na lamb simple bi jaar naa ci lu ma ci def. Mm-hmm. néew ma sama morom bu ko def. Mm-hmm. waaye dem naa ci loo xamante ne gaaw na te te rafet na. ma bëgg a fas yéene nag. mais beneen tur bi lu ko indi Omar Ndangan bi. non Jalang Omar Jalang man Ndangan Samb laa dëkk. ah voilà Omar Ndangan laa xam. Ndangan Samb laa dëkk. ok mu foofu sama dëkk cosaanu papa. waaw Omar Ndangan dëkk cosaanu yaay mooy coom bi. di mm-hmm. sant waa Gandiaye yëpp di leen nuyu bu baax a baax. waa Ndangan Diène yëpp waa ñooñu yëpp maa ngi leen nuyu bu baax a baax waa géej yëpp

kii ci champion yu ma jaar duñu moroom kii. aba ah limal ma ci limal ma ci juróom rek. champion yu ma jaar man. waaw waaw. man bëri naag paka la. loolu fekk naa ko. fekk nga ko. waaw bëri naag dimle jox. waaw fekk naa ko. bëri naa mbañik. Mhm. bëri ñaa biram biram kunkum bu jël trente nag yi. Mhm. bëri ñaak ñooyu yëpp ñooyu yëpp victoire la am si ñoom. Mhm. paka la nag damaa damaa ko daan mu daan ma. Mhm. yaa ngi waaw dimbali itam dama ko daan mu daan. mu daan la waaw. mais yeneen yi su ma su ma su ma nekkee fii di lim fii ba suba. mu ñu jeex amul li ma defoo si làmb. jërëjëf may la ko yow laa nag. Euh, joxal ma bekkaay. sa waay na de yow looy kañoo. waaw père dama lay benn affaire. Euh. bëre naa pakala même bu bëree woon ak Yékini laa la bu vendredi mu réer ko. waaye yow la foo teg loolu. bu arbitre sifflé bu vendredi bu bëree woon ak Yékini. am ci ndam laa la de. bu vendredi mu réer ko. jërëjëf waaw voilà damay sant sama grand Ousmane Diop daf maa jàppale ci combat bi jàppale ma ci contact bi ma jëlee avance ba léegi mayu ma jàmm Ousmane Diop bu caaree di ñaanal Xaalim Ndiaye yàlla na ko yàlla may ndam Xaalim ma jëlee avance ma ne ma fooy dox doxal waaw xaalis jox ma kon dama koy sant di sant waa Kër Masara Père dama leen la dañuy ñaan yàlla waa Kër Masara mu bëgg ñu def mobilisation. waaye da ngay kaar yeeg lu mu mënti doon lépp moom moo ko def kon gars yi dañ génn dugg ci oto yi ñu dem stade feesal ko ajuma waaw ajuma dama bëgg bu ñaari ñi nga xamante ni suñu nawle leen tamit nekk suñuy kilifa nekk fii ci dëkk bi ñu tuddee ñu tuddee leen drapeau yi dama bëgg ñoom tamit buñ ñëwee gis ni ñoom ñii kat ay kilifa lañ ci dëkk bi te war nañ leen a tëggal stade Demba Diop kon ñu tamit te ñu bëgg nañoo bëri stade Demba Diop kon ñoo ngi woo ñëpp jërëjëf jërëjë kon mbokk yi euh, loolu moo doon jàkkaarloo bi waaw une minute rek mbaa euh, kii Omar waaw nuyoo la nuyoo rek waaw léegi nag man daal di sant rek dolli sant it. Mhm. di sant yéen yëpp bu baax a baax. Mhm. di sant bu ko ñang bi nga xamante ne carrément moo bala alfa alfa alfa mii. jërëjëf. ak libaas. jërëjëf ñoo ma tax ma ñëw Dakar mii di bëre bëre dóor. merci beaucoup. sant waa sama suñu waa kër nag. Pikine waaw Papa Ousmane Fall. Mhm. ak sama bañ ay defal fàttewuma leen. jërëjëf ak Ami Gandiaye. jërëjëf Omar euh, Fall euh, Jalang mooy dajeek euh, Bekay 3 Saloum numéro 2 kooku mooy drapeau ki nga xam ne mooy madame Thior di chef de cabinet bu maire de Dakar Omar Fall Jalang moo koy bëri ak Bekay 3 drapeau El Hadj Ahmadou Garmi Mbaye Saloum numéro 2 moo koy bëri Kunta Kinte. Euh, ki nga xam ne Yékini à suivre dina dajek euh, bu Bakka Yékini à suivre mi ngi dëkk yëmbal mook Bakka bu Balla Gaye euh, lion bu ñaari tali bu booy Bambara mooy dajek Mbita Ndiaye bu Soumbédioune Balla 3 Ah, bu Balla Gaye di dajeek ah, buuru buuru buuru tan numéro 2 bu Fass Benno ah, maam góor Diouf junior di dajeek booy jine fekkee ma ci boole maam góor Diouf junior ku ne xam ne ne Bawol la bokk général bu Grand Yoff bu Grand Yoff ak Lour bu Bawol ñoo ciy daje loolu ajjuma la mbokk yi ci stade bu Cheikh Mbaba waaw waa Balla Lour Balla luur bu Cheikh Mbaba mooy dajeek général bu Grand Yoff kon na leer noonu eh, bu mbooloo voilà bu Grand Yoff mbooloo kon mu ngoogu eh, seen tur yi daa bari léegi <laughs> eh, kon defe naa ne drapeau baa ngoogu ajjuma la ci stade Iba Mar di drapeau madame Thior di secret chef de cabinet maire ak El Hadji Ahmadou Garmi Mbaye tëjee ko ci ki nga xam ne mooy promoteur bi Events Grand Dakar kii Euh, Omar Diagne Omar euh, di sunu xarit moom it euh, Omar defe naa ne yaa ngi tëj sa saison tey kon mën nga def bilan a mi parcours lan ngay wax. waaw fii ci Dakar ñu ngi tëj suñu saison. Mm-hmm. mais am nañu benn bu ñu def à Bergamo le 22 le 23 ak le 24. da ngay voyager après ak Mbës. Mm-hmm. ak Cheikh Ousmane Sarr Mbës ak Cheikh Ousmane Sarr. waaw le 22 le 23 le 24. ñi ngi koy def waa ak waa ASOSB association des sénégalais de Bergamo mhm. ASOSB ONLUS mhm. Cheikh Ousmane Sarr Mbës mooy xale bi nga xam ne moo nekk Mbës moo nekk Dóor Dóoraat Dóor Dóoraat Cheikh Ousmane Sarr mooy doomu mooy doomu kii doomu Doudou Baka Sarr Doudou voilà donc ñoom ñaar mhm. le 22 le 23 le 22 le 23 ak le 24 euh, Bergamo à Bergamo parce que dafay tombek week-end culturel u ASOSB ONLUS ok donc mooy association des sénégalais de Bergamo dem naa fa fan yële laa fa jóge mhm. def ñu réunion ak ñoom def ko ak le consul. Mhm. Euh, du Sénégal en mhm. Italie. ñu toog waxtaan. et je pense que li ñu jàpp jàpp nañ ko. te xam naa ne tey ci ngoon ñoom dinañ seetaan émission bi. pour vraiment ñu gën a confirmer li nga xam ne moom lañu def. contrat yeeg yëpp def nañ ko. li liñ ci war a liggéey ñi ngi koy liggéey mhm. en attendant le 20 wala le 21 mhm. bu ñu yàlla mayee jàmm ñu mun déplacé wu yóbbu mbër yooyu pour ñu mhm. mun def confrontation foofu uh-huh. ci la ñuy doog a ñëw nag tëj suñu saison tëj seen saison voilà euh, jërëjëf na am occasion ci ajuma ji gën cee waxtaan <coughs> euh, ci biir combat bi nga xam ne yaa ngi koy organisé euh, ajuma ji di ñëw drapeau madame Thior ak drapeau El Hadji Ahmadou Garmi Mbaye ànd ceeg télévision Futur Media mbokk yi ñi ngi ci cappaandaw émission bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp koo xam ne yaa ngi ñuy ak ñi teew fii ci biir salle bi di leen gërëm di leen sant euh, Zos dafa demoon di waajal kombaam booy Boy Niang dellu si na euh, kon dañ leen di bàyyi ak Zos euh, gis ni mu ñëwee ak état de forme bi mu ñëwee mbokku téléspectateurs yi. di sant Sénégal di remercier aussi Indi Indi Indiana police bi ma jógee euh, di remercier Sénégalais yi ma fa fekk gars jàppale ma euh, di ma yóbbu saal jox ma hébergement yu baax mel ni doomu Moustapha Guèye El Hadj Moustapha Guèye waaratakat euh, Makhtar Guèye sama tonto tonto Assane Assane Diouf vraiment ak sama grand Badiane ak sama copain Fosser. kooku moom ma yóbbu si jëm bi may xeex ak gars yi euh, di ma yóbbu aussi si salle boxe yi may xeex ak gars yi euh, grand Sidibé grand Keita Cheikh Ndiaye vraiment euh, accueil yi ñu ma accueil bi par affaire bi daf ma jë daf ma surpris quoi vraiment Indiana policier bi ma ñëwee ñoom Cheikh Ndiaye gars yi Goudiaby bi et frère gars yi ma fay fekk vraiment mu nekk ay gars yu nice yoo xamante ne. xam nga accueillir bi nice na quoi donc dañ may dañ ma dañ ma aussi dañ may yeb waaw ñoom dañ ma yeb quoi ay grand kayité waaw dañ ma yeb dañ ma dañ ma ay tata aji màgget bu euh, Rhode Islands dañ ma ne def nañ li ñuy def ba pare mais yow ma ne la ma ne la laay di fay ñu ne ma ndam. dama demoon motali ji ba tey la même chose dama demoon ji reprendre leçon yi. di gën a répéter leçon yi di gën a liggéey parce que sama avenir mooy làmb man làmb laa xam lu ma am si làmb laa ko amee. coow li bëri na donc booy bi fu fu ne fu ma tourné mi ngi may dëkk dem naa ba combat mënatu ma ko am parce que promoteur boo wax mu ne la sponsor bi combat bi la bëgg xam nga déjà nekk na loo xamante ne mënu woon bañ a bañ jël combat bi donc damay liggéey il faut ma jël combat bi woon ne booy bi. parce que boo xoolee booy bi man la laaj pourtant ñi ma daan laajul ñooñu yaakaar nañu ci man moo gën a nooy loolu la moom metti ndax ñu yaakaar na fi moo gën a nooy loolu moo metti waaw dafay day laaj nag mu seere wow koŋ xamul ma la wax noo dina wow rek dina wow foo ñu dem ba fàtt affaire bi affaire bi dëgër dégg naa ñu dafa am ngemb dégg naa et puis wax nañ mi ñu koy jàppale biir stade ba yëpp xam naa lépp bee boo ñoom te ñi bàyyi xel seen bopp bu baax bii baax parce que du ma dara du ma dara déggu ma du ma dara dañ maa fay fay ko damay dem ba jeex tak yokk ndox mooy dóor dooraat dolli ñeex boobu gars yi di wax. ñun bu ñuy ñëw dañuy indaale poids mais après fii la ñu war fii la ñuy nattee poids bi ñu war a liggéeyaat ci biir làmb ji. parce que dañuy ànd ak ay techniciens yiy liggéey ak ñun ci biir làmb ji techniciens yooyu euh, ñoom ñoo lay wax après li nga war a bëree ni nga war a gérer combat bi parce que am na aussi ay kilifa yu may waxtaanal pour ñu ñëw jàpp ci làmb ji bii baax mooy ay mag yoo xamante ne ci làmb ji la ñu nekk am nañ ci expérience ñëw jàpp ci liggéey bi cet fois si bëgg naa loolu aussi parce que lu ñëpp lu wax mooy dëgg quoi non maa ngi ay pound rek. coow de jib xam <laughs> nga di bëggee gars yi di bëggee supporters yi Sénégal aussi écurie bi vraiment sama écurie dóor dooraat bi gars yi ñu ngi ciy liggéey bu baax gis nga gars yi booy temps yi ñuy def ay ay exploit yu baax xam nga di bëggee supporters yi gis nga gars ñoom fu ñu fekk ñi ngi bëggee xam nga day xam te keroogee ñi lay ñëwee estat yéegal te estat damay yàkkamti ñu def ay signature contrat wala ay jàkkaarloo xam nga ba nga génn fël génn saayis njaab you know, yeah, whatever, whatever you need, man. Shout out to my man, my old guys living United States, man. Take care of me, boy. Bring me my gym. Sometimes I go to the gym, man. Work out, man. Work out, man. Work out, um, do some um, cardio, man. Whatever I need, I do United States, Indiana. On low. I'm gonna tell him something, man. I'm gonna do something like. Alright, man. ma rakki bay dem na tool moom a xale ya jàngi bu fa am bi ndànd ma rooti na ma nekk yaatu na ma diggi nekk yaatu na